mais peut-être bi koy def dañu foog. waaye ban peut-être ma jigéen yow ma jigéen loolu ñi ñoo ko def ah, mi ngi noonu. nit da ngay am na jëkkër yu ñàkk fay def. am na jëkkër yoo xam ne moom baaxul am na yoo xam ne ba pare ba ñu ñu koy aussi tamit euh, classe. dafa am ah. xam dafa am jigéen ñoo xam ni wax dëgg fa yàlla ku dugg ci jigéen ju amul classe it loo ci dal ëllëg yaa ko teg sa bopp. Mm-hmm. parce que dafa am jigéen ñoo xam ne bi ku mën a sol loolu di fecc ci kanamu mbooloo ñu lay filmer sol say ah. loolu moom ku ko def ëllëg si biir ku ca takk ci jabar yooyu ah. ëllëg si biir nga dikk naan sama jabar ji noonu dañ ko doon tëddee bu ñu fontoo dëgg la bu ñu kenn yàpp mhm. ah, waaw parce que am na soxna yoo lee ma gis moom ku ko sa jabar mën a def lu loo ni ma def nañ mi ngi mi ngi koo def laa bu ñu kenn fontoo dëgg la parce que am na loo xamante ni bi moom euh, jaaduwul quoi waaw mais alaaj tudd nga baat bu yàgg waay beejo mi léegi moom lañ xewal yu gàtt yoo xamante ni bi mi man damay fàttali Mbaye Gueye Faye ba mu daan wax naan ba neen ñëw jamais deux cent trois bécco trente sept centimètres Mbaye Gueye na fay soirée yooyu de moom it waaw ah Mbaye Gueye Faye yàgg na ko ah. waaw publicité ñaan bécco trente sept ak loolu soirée moom su ma paree faaw ma woo ko ah, il mu liggéey de parce que temps yi moom dafa mel ni liggéey ay boutique solution waaw mi ngi nekk en face wal